أبواب السلاطين قالوا لي يركن نيناñ ma jàngal jëm ci buntu buur yow خادم رسول تهز جوائز التوني كلما خيني soo kado ak may yoo xam ne waxtu bu nekk day doon قالوا لي يركن لأبواب الصلاة إني mooy bés bi nga xam ne aljana ñu denc ko تفوز جوائز توني كل ما قيل سيرين طيب احمد ندومي مارسيل دالي كوي تخاوي قالوا keroog la ne ayna ibnu ahmad ana sunu doom ji wax ahmadul xadim li yarkan li abwaabi salaati mu ne ko labbayka mu ne ko udnu fa danaa ba'da dunuwi jege sama mu jéggi ñaari jéego dal di taxaw te xus jawaisatu ni kullama xiini mu ne ko danoo bëggoon ànd dem ci Lat Joor nga jàll ko si wéjur wa ndax kaana xaliluhu wa habibuhu wa sheyhu wa mushawiruhu fa qultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi sëriñ Tuubaa nee na doyloo naa yàlla jëmm naa yëkki samay jëm ci benn budul man xaadimu rasul gërëm ma dara lu xam-xam ak walastu arju wala ya wala su arju wala ragaluma wa ku mi nga xam ne sa borom li annahu jalla wa ndax yàlla momay jël jàll aji màgg ji moo may momay moo mom xëcc li moom yàlla wala arju wala ahsum siwa ko yakar rek yàlla la yakar suñu wone na man yàlla rek la yakar li annahu jàlla ci yuhmini wa yunjini ndax yàlla momay yuhnini momay may woomal ba ma doyal man xari ma sur wa yunjini momay may xëcc li wal naa sama mbir jëmale ko ci buurub adduna an xaali anfusihim xajzal masakini ñi nga xam ne lott nañ ci seen yitte ajzal masakini ni miskin lott lañ lott ci seen yitte aw kayfa yabasuni xubbul xutaami ila wala bëgg pañ a xitum adduna mi war na maa jañ ma jëm ci buuru adduna jiwaari man duuruhum rawdu shayatini sëriñ ba nee na dëkkuwaayu buur yi nee na mooy barabi seytaane yi moo tax duma ko fréquenté in kuntu nee na su ma amee njàqare. aw kuntu za watari. mbaa ma doon borom yitte man xaadima rasul. dahawtu zal xay. damay woo borom ayin. xabla ra. di jiitu raa. wa shiini. te teg ci siin boo ko balee mooy aras mooy ayin ak raag siin. in kuntu za watari. nee na su ma amee njàqare man xaadima rasul. mbaa ma am jënd yitte joo xam ne maa ngi ko yittewoo man xaadima rasul. dahawtu zal xay. xabla ra'i wa shirin damay woo borom ayin ak ra ak siin boo ko balee muy borom anas rek lay woo wa wal mu'inu alladi la yujidu yàlla moomee mooy ka nga xam ne dara dara dara ci kàttanug yàlla waxwal mukawwinu maa shaa'a takwini yàlla moomee dara lottul ci kattanam kattanam lottul ci dara moom yàlla inshaa taajil amrin kana za hajal yàlla su ko noofee su ko su ko soobee lu mu bëgg mu gaaw loola gaaw aw shaa tajilho yabta ilal xiini lu mu bëgg digal nag su ko digalee rek waxtu mu ko soobee la koy dogal moom yàlla yaa may ah. yalumu falaa ku sir wadali sëñ Tuubaa nee na ba wax ji bari yow mi may yedd ci lii ma dëdd buntu adduna yi bu mu bari is lastu min faqdati dunya bi mawzuli su fekkee daal ñàkk gi ma ñàkk koom adduna loolu mooy ayib loolu ayib ju ma neex la in kaana raybi zuhdum fi utaamihim su fekkee dëdd gi ma dëdd buuru adduna yi loolu mooy ayib ci man Xaadimu Rasuul fa zaaka haybun nafisun laysa yuziri loolu léegi nee na ayib ju ma neex la man loolu naqari ma du gàcce ci man xaadima rasul boobee lañ koy woo naan ko kaa ñu dem ci Lat Joor nga jàlle ko sa bàyyi ndax xaritam la woon soppeem la woon nafiisu laysa yuzini sëriñ Tayba Ahmadu Ndumbé Mar Sylla moo ko wax ne nañ dem nga jaale ko sa baay sëñ Mor Anta Sali ndax xaritam la woon in kaana ghaybi yasudu fi xutaamihim su fekkee nag dëddu gii ma dëddu àdduna loolu mooy ayib du ayib ju ma naqar yi fa zaaka xaybun nafiisu laysa yuzini kon su la neexee nga jàll borom tànni na loolu kon ayib ju ma neex la man Xaadimu Rasuul in kaana ghaybi yasudu fi mutawamihim su fekkee ñàkk adduna ba li ñu tudde koom adduna mooy taax yi ak tabax yi ak alal ji loolu naqariwu ma fa zaaka xaybun nafisun laysa yuzini koomum adduna si waneen loolu du am koom am yàlla rek mooy am koom bi barakati Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul